contrat boo xam ne dañ ko signé fa mu war a tasee mooy ku ne su kenn ku ne kenn suul sa moroom wala sa moroom suul la loolu mooy mooy contrat wu mais bu fekkee ne góor bi bi bi ñu dénk jigéen muñul waaw mais te ñu ne jigéen du xelam matul waaw léegi ki xelam matul ana ku ko war a muñal ki xelam mat léegi ku xelam matul mais moom la juum jig jigéen bu juumee da yow kii xelam dafa gàtt mais góor moo warul juum ki warul juum na xam nga mooy kan ki nga xamanteni sa soxna dina dina sax ne leeg mu def safaan nga muñul koko góor rek lañu ñu muñuloo góor moy ki wara a sëy bi sutural ko yir ñi muy sëyal ba nga xamanteni lu ci mënti am rek mom mi nga xamanteni décision finale bi mom mom moko amé mom mu mëna am xel mu dal ak muñ ba bu ñu waxee bala ñoo wax ak moom sax. waaw ci li nga wax la Fatou Seye dañ ne woy dencante. bu ñu woy dencante. mais ñaar góor amina sa bay bàyyi jigéen ah. góor mooy denc jigéen waaye yow mi denc. yaa war a muñ yow mi de ma ñëw ci père père est yaakaar nga bokk na ci luy neexal sëy parfois nga yeewu dimanche yow ku góor ki liggéey woo sa jabar a ngi nelaw nga dem defaral ko benn ndékki bu neex indil ko ci kaw lal bi ah, ah, parfois ah. a ngi togg nga dugg ci wàññi xolli ko légume wala dëbbal ko noppos bi parfois nga def ménage loolu yëpp est bokkul ci loo xamante ne day gën a encouragé ku jigéen léegi doon fenal nga tekki couche bi fomp ko daal di koy couche mu saw nga wis ko am ndox mm. xam nga mu nga fële nekk ci leneen yaa ngi si fii nga nekk ko ci lii loolu loolu gisuma ku ko bañ loolu maa la détaillé bu ko kenn bañ. Sénégal la boo ko defee ñu ne dafa ragal jabaram loolu dafa ndax loolu mm-hmm. du dara loolu du dara. waaw mm-hmm. ba xale bi tuur na ndox kii mu nga tëdd fee sax mi ngi ci nelaw yu xóot mën nga koo dindi du ma la yee. ci liggéeyu kër gi nga jàppale ko ci liggéeyu kër gi. ak ah, kay soo seetee la yow doomu soo métier léeg-léeg nga jël sa ci sa de terre sa prix daal jot seneen daal di defar daal ki lekk su fi nekkee mën nga koo defar fekk dem na marché bala moo ñëw. waaw kay a ko def seen kanam. bàyyi leen goro yi bàyyi leen goro yi oh bàyyi leen. yow sa kanamu yaa nga defal sa jabar ndekki dugal ko ci biir néeg bi. defee ne doo ko defati ci àddina parce que borom tubaab wax naa la exemple nee naa la gis naa koo xam ne ñoo bokkoon xale la te ma nga bu mel day toog ba sa xëy daal di toog te jabaram ma dafa yaay ma wax si laa dafay def si laa bu dafa dafay def bëkk dem la xëy dafa daje ñëpp moom docteur Mbaye topp booru géej gi mbale lépp ba mu set yow ay xam mooy et tout daal gën taxaw day toog ba sa بالله لا لا وخ يوسف جند اك ندوال نتاي دا فا ام انفي فوكو ناخ دا اكستيرير دا فا مانا mooy dagg mooy toggal boppam def ko noo xam ne muusal boo xam ne ñépp doon yuuxu. ci kër gi li ngay ah, ñu génn réew du yomb ñu def ko. waaw noonu lay demee de. boo xam ne nit ñi doon naan kii noo ko mënee mais lan la. la paix waxuma la loolu ki ñëw di woo laalo wax fexe kub ko kub mais buusu day génn kër gi dem ànd ak moom dem wéet ndax wéet dafa neex. kooku seetkat la du sëykat. kooku laa lay wax. kooku seetkat la ki ñëw fekk mère bi nekk ci jàmm paa bi nekk ci jàmm mu ñëw rek taal taay bi. rek da daal di ko sax almet daal ci teg ñuy wax mu toj ci kaa ni indi histoire guddee ba cëg seen waa kër jóg seen day jóg ñëw def seen renfort ne doon yi xeex si ci kër gi ku fekkiwul père Mangoné ku fekkiwul ñu bàyyi père mu daal waxuma la foofu ki ma lay wax mooy ki ñëw jàpp boobam kenn dootul wax ci kër gi moo ëpp doole gone yu ndaw yi ak njëkk yi ku mu jekkal dóor maire bi dootul wax changé vie bi complètement kooku laa lay wax ki ma lay wax mooy ki ñëw fekk ñaar bi dëkk ci koñ bi ak dëkkinam nekk fa ak soppeem. Uh-huh. nekk fa ak noonam mu jóge fa dem lënkoo ak ay nooni maire bi di koy wax ni maire bi doon seeyee démb ak bëkk démb. Uh-huh. yaakaar ci lu dul mu jote ak maire bi ba eggee ko. Uh-huh. ki ma lay wax mooy ki nga xam ne moo am ay lay ci koñ bi yu ko naan kaay nga digal la te bu ko sangoo ko yëpp. mais su déglu bu baax ñu tuuti. sebetulnya aku lilitan Yusuf ni pun lama. Ni may dëpp Youssou non non non Youssou. voilà monsieur le téléspectateur yi 88 628 89 90 ngeen bëgg. allo salaamaaleykum. du yoon. allo salaamaaleykum père ñu jël téléphone. allo. 88 628 89 90 allo. allo. ngeen yang eh, bu dee yaa ngi may dégg da ngay wàññi téléphone bi rek télé bi plutôt ñu déggoo ci téléphone bi. waaw lay dégg bu baax baax. ngi lay fay. ngi bi dëkk Malika. nuyu nañu waa Malika yëpp Babacar. sànq sëñ bi dafa am lu mu wax. gannaaw bu ma leen nuyoo yéen ñëpp. mu ne jigéen ci di mais góor ak jigéen yëpp ma xam nga dañuy bind jigéen ci góor kon dañuy mottal tayentante wenn mhm. saa jël kenn ku nga xamante ni soxna ko doon mu yam ci moom képp c'est parce que faar ba moom la ñu mu tolloog moom ba tax na ñoom ñaar ñu mën a def mhm. yéen aussi jël benn mat mu upp lool wala mu cëpp lool moo waral nag ñu tànn ba ñeent dafa mel ni oto buy daw rek buy daw quatrième pour nga freiné ko fu muy bëf frein yi pompé ko pour mu mën a taxaw mu am tamit buy daw premier buy daw premier nag pour nga freiné ko muy gën a yomb dëgg la kon toujours yoon ménage yi li ci war mooy ñu comprendre ku ki di comprendre ku jigéen ku jigéen ki di comprendre ku góor ki surtout aussi tamit nag ñu masla ñu masla ñu mëntente eh, sama waay bu góor daf moo sa wax ni balaa ngeen di xam ya, ni seen yaay ñooy tooñ seen papa yi ngeen am soxna mais nag kii na dëkk ci di tooñ boo ko ñu ngan la foo leen tool dañ leen di dégg la kon ñu

da ngay wañi télé bi rek bam mu ñu jokkoo ci téléphone bi directement. wa loolu la def ya ñu ngi déglu sa gis-gis. sa gis-gis la déglu alors kooku dem na ñu ngi déglu bu baax ñu jël keneen 88 628 89 90 allo. ba man day sama waxi démb rek mënuma cee dëpp mënuma cee dégg xadi xadi. tey jëlee ko ci ligne bi. allo. sëñ bi jigéen ñi sëy baa ci rek. rabbil alamin. waaw lay wallahi akay waay grand yaa ngi am é feere ah merci beaucoup jërëjëf déglu nga waxtaan waaw maa ngi koy déglu bu baax dama bëggoon rek indi sama benn contribution rek bi ñu leen jaajëfalee ba pare yàlla na ñuy déglu parce que fi mu nekk nii dama jàpp ne nous nous appartenons monde injuste mais justifié nag ah justifié waaye un monde injuste mais justifié mm-hmm.

Hmm. lii lañu laaj ci sëy wala lee laajuñu ko nekkut am mun nga jël cent couple tey hmm. cent couple yooyu am nañu ci baax hmm. mais parfois bu nekkee ne li ci bon moo ëpp nag laa looloo tax ñu naan naa ne sëy yi sëy yi sëy yi sëy kenn am na kenn ku ci nekk ku ci baax mais waxuñu kooku li baax ëpp lu baax waaw waxuñu kooku góor gi dégg naa bu baax ngay waxee. Euh, ñu ngi la ciy remercier de xam nga euh, li mm-hmm. bu ko ñëpp doon def tax mu mu dagan. billaahi mm. yaa ngi dégg. ñun nag xam nga ñun euh, dañoo bokk ci jeunesse désorientée fi mu nii ku ko bañ nag la wax da nga yàlla nga jéggal ma mais moom moo am. Ah. moom moo am. <laughs> lu moo sëy li tax naa la li tax sëy war a taxaw ah. ak le comme ça ku ku la définition de sëy ku ko xam rek xam li nga xam ne moom moo la ci war yépp laa la nga doxalee ko noonu ci am naa yaakaar ne coow mën naa am leneen luñ ci boole lu ciy ñagasal rek te parce que laa ne dañ ko cee boole waaye bokk ca lu ci am nag waaw bokku ci mhm. dëgg la ci mun nag jigéen moom lañuy wax moom mooy sëy. waaw uh-huh. te mooy sëy tamit. ah mais nag laa yow mi diin mooy sëy. Uh-huh. mais kii ku góor ki. waaw. gis nga kenn bëggul ku la gën. Uh-huh. Hmm, hmm. kenn bëggul ku la gën. Hmm, sa jabar tey am na coono bu muy daj laa la wax ni kenn bëggut a gis sa jabar laa bu génnee nit ñi laa la wax ni comme ça ma ma yërëm ko kenn bëggu ko. mars de tali. bëggu mars de tali. dëgg la alors kooku dafa mel ni dem na ñu jël keneen ci 88 628 89 90 salut. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñoo ngi lay ziar di la dalal jàmm. waa ñu ngi leen di ziar bu baax man ma woote woon naa sànq sax. Mhm. man maa waxoon ne euh, nu mu tuddati man ma waxoon ne jigéen moo war a sëy. Mhm. waaw te loolu moo waxoon noonu man du ma ci delluwaat ginnaaw. loolu laa gëm. mooy jigéen moo war a sëy. ma jox benn exemple. Mm-hmm. man bi may am soxna ma. Mm-hmm. Mm-hmm. sama soxna mënu ma wono a mënu ma ko woon a assuré chaque jour liibaru mburu bu muy ndekkee. te nekk na ci di fa sëy di fa sëy di fa sëy di fa sëy ba si suñu biir famille am na ay jigéen yu sëy mais bu ñu muuree ab seet ci suñu diggu kër. di ko yóbbu pour mu sëy dañ koy jox exemple ci moom. waaw. ne ne soo melal ni kii. Mhm. man mii di jëkkëram ma gërëm ko mu nekk xale bu ndaw. Mhm. dëgg la. dafa te ci àddina man moom mënut a def ci àddina lu tax ma fase ko. Mhm. kon donc ne jigéen moo war a sëy kon jigéen moo war a sëy. waaw. voilà ñu jël keneen 628 89 90 allo. waaye Habib Mohamed Goré na. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu téléspectateur bi dinaa ñëwaat ci plateau bi allo. Oh, waaw kay soxna si na def. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah waaw man maa wootoon sànq bëggoon poser benn question. Mhm, ñoo ngi lay déglu. waaw góor gi déglu nañu waxtaan bi. Mhm. waa ji soog a coupé it. Mhm. dégg nañu lu wax ci jigéen moom góor gi euh, kii soog a jóge léegi. jigéen kese moom mënul moom kese. dañ ko boole góor.

si loo xam ne man dama ko dundal c'est un vécu en fait. parce que dama doon def une euh, restitution. Ah. ci benn étude bu ma defoon. sur les sur, la pêche. la pêche. bon alors beaucoup moins faire la daal. mais c'est c'est dans c'est dans disons c'est dans les jours. Mm-hmm. alors ñu remarqué ci gox boobu ci côté boobu dafa dafa une pression importante sur sur la route ba jëndi ba

Philippe Diop dans la même confession. Voilà, dem nañu jël keneen ci 88 628 89 90 allo. waroon naa ko tontu de ci géej laa dëkk. allo salaamaaleykum. Oh, ci géej laa dëkk. waaleykum salaam. soxna si ñoo ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar mhm, waaw man de dama bëggoon wax ak sama mhm. doom jigéen yeeg ñu góor ñi. Mhm. wax leen sama gis-gis tuuti ak sama lu ma xalaat. waaw yow rek la ñuy déglu. mooy ni nit ki su nekkee juddit la wala chrétien la sax dafa war a xam lu diine wax ci moom. Mhm. ndax diine mooy ki lay wax euh, naka